léegi nag ba tey ci at moomu ci la yonente bi denc soxna Aïcha ci lañ ko ko jox ci lañ ko ko fasal rek waaye dem nañ ba Madina ca at ma njëkk ci ca gàddaay gi boobee lañ ko ko doog a nag indil ca këram alayhi salaatu wasalaam soxna Aïcha doomi sayidat sayidna Abu Bakrin Siddiq la ba tey itam ci atum fukkeel boobu ak benn ginnaaw bu jafe-jafe yooyu yëpp xewee ci la ko yàlla defale du rëy mooy da ko y da ko rañaane maanaam loolu it bokk na ci li ko yàlla fayee ci coono yi mu daj maanaam keroog gis nga wax jéem waxoon di wax noonu yàlla damay ragal ne dama la nekkul ci li nga gërëm wala da nga maa mere ndax coono yi ma nekk nii yàlla faye ko far nag defal ko li ñuy audience boo xam ne moom da ko wooy fii ci kaw suuf si mu dem ba fa suñu borom tabaraka taala suñu borom moom ñu ngi xëpp kenn xamul loolu fu mu xamee ma borom xam-xam dañ naan asamaan ñaareel ñetteel waaye yooyu kenn mën la ko expliquer asamaan ñetteel kenn xamut nu mu demee yàlla rek koo xam ak yonente bi waaye lu mën a xew moom yonente bi misaal nanu ko yoon wa ba mu leer ci suñu bopp loolu mi nga amoon ci aw rajab ñaar fukki fan ak juróom ñaar ci weeru rajab loolu it yonente bi leeral na lépp lu gudda gudda gudd la mooy yonente bi nee na booba damaa nekk ci ci néeg bi tëdd nee na ma jëkk yëg gis ñaari malaaka jibril ak mila ak ak mikaayil bi ñëwee kenn ku ne mi ngi nii de ne loolu def naa ko ñetti fan ñetteelu fan ba nag ca lañ ñëw nag yeema ne ma kaay tey moom maanaam da nga war a am tey mbir yu bare bare bare moo nekk sa kanam yoo war yu ñu la war a wan nee li njëkk def mooy dañu ko yóbbu ca zam-zam zam-zam ab teen la bu nekk ci wetu kaaba gi moo kaaba ga soriwul ba fi mu ne nii ma nga fa teen boobu dañ ko yóbbu def ko nañ ko defoon ba muy xale dañ ko tëral xar biir bi nii biñ ko xaree nekk ci nekk ci biir bi di lëx lëxi neen di raxas am na duñ ndox mi daal ne ñu ngi jël di raxas nee na indi benn palaat boo xam ne lépp or la salaat bu rafet nee ñu ne ma lii xekk ma moo ci ne ak iman ba mu fees dal nee ñu sotti ko ci biir xolam daal di maasalewaat dënd ba daal dem masan yooyu fitee da nga ko gis ci taarix waaye mbiri ruux ruux la yoo xam ne kenn mënu ko expliquer fi ne ci monde matériel bi parce que mbiri ruux la yoo xam ne yonte bi moo ko xam ak gaa yi nga maanaam maanaam maanaam du luñ mën a dégg déggin koo xam ne mooy fi ne tey ngëm yàlla nuñ koy defee ci palaat di la ko sotti ci sa xol xam nga loolu mënu ko expliquer waaye nag suñu borom tabaraka taala des na ci dégg ne yëpp fi ne dafa nekk jëmm jëmm fi ne baat bi nga wax sax yomal xiyam jëmm lay doon ju taxaw fi ne bu dee ju baax dafay amee melawu rafet boo amee fekkee du wax ju baax day doon jëmm joo xam ne ju ñaaw a ñaaw nga xam ne bu la jegee ngay ngay waajal maanaam tax sa gémmiñ ngir xee xeeñ nga mu xeeñ ñu dajalee la wax yooyu yëpp na la baat yëpp saa yaa ko fi wax ñu nekk sa wet maanaam mboolem li nga jëf fi ne ëllëg ay jëmm lañ tere fi ne wax jeeg xalaat yeeg yëpp yow ma wajadu ma amilu xaadiran maanaam jëf ji ci moom lépp dañ koy dañ koy teewal yomal xiyam loolu moo tax yomal xiyam beneen monde loo xam ne bokkut ak suñ suñu adduna bi yént bi nag monde boobu lañ ko lañ ko lañ ko ubbi rek mu mu cay dox ak ñoom nag nee na liñ njëkk def mooy dañ may indil benn jenn daaba joo xam ne keroog laa ko mës a gis mbindeef la moo xam ne nee na moom la ñuy wax buraaq bu rax nee na agul ci fas tawee na mbaam nee na ñu ne ma waral fii nee na bi ma ci waree itam jibril yor maa nekk ci wetu ndeyjoor bi mikael nekk ci wetu càmmoñ wala boog wala boog wala boog sawaan bi itam maanaam jibril mi rek mikael daal ñoo seq daaba ji nee na di ko wamal nee na waaye muy muy muy muy fas muy lu gaaw loo xam ne nee na nee na fi ne maanaam fa sa bët yam rek fa lay teg tànk ba beneen tànk mu tegaat ko fa sa bët yam nga xam ne doxinu li ñuy wax gaawee lumière daanaka loolu nga ko mën a natt naka boo maanaam bu fi dara nekkutoon fii bu fekkoon dara nekku fi nii fa sa bët yam ci àll bu foofu lay teg tànk bi moom maa nga xam ne fi mu lay saala fa mën na cee ñaari seconde mën na cee wër adduna sëpp nee na noonu la doon doxee dox bu gaaw waaye nee na bi bi muy dox itam lu bëree bëri daa xew ci yoon wi bokk na ci mooy mooy bokk na ci mooy mooy bi ñuy dem nes tuur dañoo dox nes tuur rek ñu seen mbooloo moo xam ni xam nañ leen ci giir arab yi lañ bokk seenu gileem réer réer ñu di ko wër ci àll bi fekk fañ nekkoon it teg nañ fa ndox moo xam nañ ko muur yonte bi nee na ñu may ma ma wàcc naan ci ndox moomu naan ndoxum gaañi muuraat ko na ma ko muuroon dem loolu tegtal lay doon ci ci ci bu fekkoon mën nañ ko nettali bu bu ne ba ñibbi si bi ne loolu bokk na ci dama wax waa Makka ne ne leen diw sàngam ak diw sàngam seen gileem nga réew réer fañ nekkoon seen ndox ma maa ko maa ko naan ñooñu ñëw ñu laaj leen ñu ne ah waxtu sàngam de suñu ndox mi daal muur nañ ko dem gis ñu naan lépp te muuraat ko nañ ko muuroo xamuñu lu ko naan moom loolu benn la ci tegtal yi nga xam ne moom lañ moom la ñuy xamee ne li mu wax wér na nee na ci loolu nee na biñ doxee tuut ñu àgg ci suuf soo xam ni dafa bari ay tàndarma yu bare bare bari jibril ne ma wàccal ma wàcc mu ne ma julli ñaar rakka ma julli ñaar rakka mu ne ma nan yéegaat mu yéegaat ci fas wi mu ne ma xam nga fi fi nga doon jullee ma ne ko déedéet mu ne ma foofu mooy yasrib foofu foofu foofu ngay gàddaay jëm mooy madina madina ak màkka juróomi téeméeri kilomètre dafa nekk nee na ñu doxaat tuuti mu ne ma wàccal ma wàcc mu ne ma julli ma julli ñaar rakka mu ne ma nan demaat mu ne ma foofu fala mooy garabu Moussa ga ca Madian ca Madian dëkk bu ñuy wax Madian nga xam ne fa la soxay bu nekkoon Moussa fekk ko garab ga mu wéeru woon doon teel ñaari xale yu jigéen ya wutal doon leen tànk ndox garab googu mu fa nga fa nga julli ginnaaw bi itam mu wàccloo ko ci beneen bërëb boo xam ne danañ ko foofu la Moussa doon wax waxanteeg boromam mooy tuuru Sina ginnaaw bi itam nee na mu wàccloo ko ci beneen bërëb boo xam ni danañ ko mooy baytu laxam fala Isa juddoo noonu la ko toppee nee na nekk tuut bi bi ñuy dox nii bi mu waree ci kaw buraak nee na ne tuut ma séen maanaam maanaam maanaam mbindeef mu mu ñàng mooy mooy koy koyul jinne loo xam nee na mi ngi yor maanaam sawara wu rëy wut si ma bëgg ma ko maanaam bëgg bëgg bëgg a dal sama kaw ak sawara yu mu yor nee na jibril ne ko waxal baat yi wax waxloo ko ay baat yu gudd la qul a'udhu bi wajhi llahi karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun xëy na ñu bari dégg nañ ko ba tey nee na ba ma ko waxee ba àggal rek la waa ji këpp ci kuréel jinne li këpp daanu fa la yii nii mas na ci dégg lu bari mooy mooy jinne yi ak yooyu noonu bis booy muslu ci suñu borom tabaraka taala duñ la duñ la mënal dara boo leen seytaane yii nii fi ne booy muslu ci yàlla dina xam nga boo gisee ci lislaam fi ne lenn lu ne am na muslaay tey booy dugg ci wan gi nga xam ne dañoo wax ne fa la seytaane yi dëkk masalan booy dugg ci wan ak am na looy wax fi ne la loolu suñu classe yi kenn waxtu ko da nga jekke tëll buntu bi dugg faj fajaj moo tax bi seet nga gis nit ñi wér di wér di xel yoo xam ni kenn du mën a faj parce que jinne ay mbindeef la yoon ñoon ëpp te ñun ñoo ñoo ñun a dëkk te itam yaraakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawun ñu ngi ñuy gis te gisuñu le dëkk kër gi nga dëkk fa ngay gis fi ngay lekkee fi ngay lekk yonte bi nee na boo duggee ci kër gi masalan boo waxut bismillah bu ngay dugg jinne ji daa ne fii de mën nañ fee fanaan tey jinne seytaane yi dañoo ne fii mën nañ fee fanaan tey boo sukkee ci ndab li boo waxut bismillah ñu ne ah nan ñëw xéwal day am na waaye boo ne bismillah ne ñoom ñëpp ñu daw dañ naan fii kenn mënu fa fanaan maanaam boo sukkee ci nawet boo ne bismillah ñu ne kii kenn mënut a bokk moom daal daw maanaam moo tax l'islam li mu digle lépp lu am solo yu mat a kii damaa xam ne boo toppoon net li bi nii day day gudd waaye yonte bi nee na dañoo des dañoo dox na tuut ñu gis nit ñoo xam ni dañuy def dañuy bay léegi mu ñor léegi ñu góob ko léegi bayaat léegi ne ma ne ko waaw jibril ñii moom ñu mu doon nga xam ne fuñ saase dañuy bay moom da daal di soq léegi naat bu ñu daal di koy góob léegi mu daal di daal bayaat léegi maanaam fa saase ni ma ne ko doon lii moom kenn xamu ko lii lu mu doon mu ne ma ñi daal mooy ñi nga xam ne yàlla yàlla dañuy jublu ñi nga xam ne dañuy jihaat ci yoonu yàlla seen tuyaaba ni ko yàlla fële nii rek la mooy benn bu baax bi ñu def jeexat yoon yàlla la ci la ci jiitu mooy xam ne dina yàlla ji lazina jaahadu fii naa la nahdiyannahum subulana booba ca makka la wàcc te booba jeexaat xeex bi te jeexaat bu ñu ko waxee jàpp ne xeex rek teg fekk jeexaat ci xeex mooy li mujj jeexaat la ci jiitu mooy xam ne dina yàlla ji loolu mooy jeexaat bi gën a kawe bu gisee ndax aaya yi wàcc makka tey wax ci jihaad yëpp jihaadu maanaam xamle diina ji ak jàngale la ci yàlla jublu fi ne moo tax gis nga yonente yi yàlla gën a fonk ak gaa ñu baax ñëpp ci njàngale diina jooju ak di ko leeral rek ci lañ ne yow jiw xamal ko ne ko ñoom lu baax liñ def donte benn la yàlla da koy fula ko fula ko fula ko fula ko fula ko ful ba mu bare bare bare bare ma sante ci misaal sëñ Tuubaa Seexul Bamba radiyallahu anhu wa ardahu sëñ saxaar bii mu def nga xam ne bu wutul kenn ci suñ maamaati maam yi fi ne moo ko jàngaloon moo ko jàngoon jàngal ko keneen kooku jàngal ko ay junni junni mu jàngal ba Cheikh Ibrahima mu jàngal ko du kenn xam masalan lam fi am ci tuyaaba kenn mënu ko xiyaas kenn mënu ko xiyaas maanaam maanaam la ko ci yàlla defal rawatina nag moom ba mu koy def fëccës ba mu ko defee xol bu sell ba maanaam kenn mën la wax daraja yi loolee nag moo tax jëf jëf yi noonu la ko yàlla fule yooyu nag la ko yàlla doon wan yu bëree bëri yaakaar naa damay taxaw damay bañ a konni ci maanaam ndax loolu lépp ci suuf la ko gisee boo nee ba métu bétul maqdis nag foofee nag la yonente yépp dajee foofu ne yonente bi ne damaa dugg rek jekkee gis yonente yi par kenn kenn dikk ñaar dikk ñuy dikk par kenn ku ñëw julli ñaar raka toog ndax ku ñëw nee na toog nee na ba ñëpp daje ba ñëpp daje mboolem ku yàlla mos a yónni ci kaw suuf jibril ne ma doxal nee na ma ma jiitu nee na bi ma jiitoo jiite leen ñoom ñëpp nu topp sama ginnaaw ñu julli loolu suñu wax na ko ba tey foofu wal ambiya wa kullul mursalina ma'an taallamu minhu aadaabal ibadat ibadat loolu wax na wax na ak yeneen yu bare bari xad mi ngoog foofu itam dañ faa def ab am ndaje mu rëy ñu tam laaj laajante ak waxante lu bare bare bari loo xam ne xaw na fa yàlla dogal maanaam nag mu doog fa jóge dem ci kaw asamaan asamaan su njëkk sa asamaan su ne ak kam fay fekk wax nañ ne asamaan su njëkk si ma nga fa fekk sayyiduna adam adama alayhi salaam moom it ba mu fa ñëwee nee na da ko fekk moom adama mu toog ci garab nee na bu xoolee fii xàqtaay di dégg lool bu xoolee fii daal tàmbali jooy jooy ma ne waaw góor gi yow lu ko dal ni jibril ne ma kii mooy adama sëtam yi ñu baax ñi ñoo nekk ci wet ñoom lañ koy wan ci wet gi ñu bon ñi ñu koy wan ci fii nee na bu xoolee ñu baax ñi day bég xàqtaay di bég waaye bu xoolee sëtam yi nga xam dañoo dem nar dem sawara ci mbon nee na day tàmbali nag di jooy loolu loolu loolu la fay def nee na itam mu nuyonteeg moom saafoonteeg moom mu ñaanal ko yàlla na yàlla defal jàmm ba mu dem ci asmaanu ñaareel sa fa la fekk Yaxya ibnu Zakariya ak Isa ibnu Maryam ñoom it mu saafoonteeg ñoom jàll asmaanu ñetteel si fa la fekk Sayidna Yuusuf ñeenteel ba fa la fekk Idrisa alayhi salaam juróomeel ba ci la fekk Haarun rakki Muusa alayhi salaam juróom benneel ba ci la fekk Muusa ibnu Imran Sayidna Muusa Sayidna Muusa moom ba yonte bi ñëwee Moussa Fante moom ba yonte bi waaj jàll dafa jekkee rek jooy ñu ne ko waaw sëñ bi looy jooy mu ne man damaa xam ne li ma kër kër lépp ci àdduna te kii sama ginnaaw la ñëw nar ma ëpp ñum ñum ñum ñum jubbanti maanaam ñum ay nar ma ëpp mbooloo moo xam dañu jube ci moom loolu da si dégg ne maanaam maanaam fi ne gaañu baax ñi mbooloo mi topp leen ñoru leen nit jube ci ñoom moo leen ñor loolu nag bu mu gën a bari fi ne ci la sa dara ji gën a yëkkati ko ci misaal gis nga Seydina Muhammad yomal xam ne yoo xam ne moo fa ëpp mbooloo moo tax moo gën ci yonente yi yeneen yonente yi daa am ñoo xam ne day ñëw fa ma wajat na xayra fi fiha xayra baytin min al muslimin ni ko alxuraan waxe maanaam daa am ñoo xam ne genn kër rek la topp benn nit ñaar nga xam ne ñëw ànd ak kenn nit ñoo xam nga ñoo ñu gën a néew daraja ci yonente yi ñu ko moo tax itam suñu tuwaay itam mi nga xam ne dafa doon yonente bi murit bi nga murit bu bëgg sëñ bi maanaam bëggal sëñ tubaa amul lu gën a kawe fexe ba maa nit ñi nga xamal leen la sëñ tubaa nekkoon daa ci woote jëm ba ñëw topp sëñ bi ci njub boole ci maanaam mbooloom xel-xel jéeg coow li nii amul solo mooy sëñ tubaa sëñ Abdourahmaan wax kam man yu radidu bamba bamba wala yu xarriku saakinan fii nahjil marsum maanaam bamba bamba jur jurul jeex te yow ak njub nekkoo ci li sëñ bi wax doo ci def dara loolu ilaa mi din yaa ngi sëñ bi day ni gën a sore bi ne yaa ngi jëm fii sëñ bi nekk fee ngay daw di maanaam amut lu gën a ëpp solo nga xam ne moom suñ tubaab ci moom da ko daa wax sax maanaam wax nañ ne bi mu nekkee fii ci ci ceeb laat ci moom moo ko nekk sax wax ne bi mu nekkee Mauritanie jamono bi mu nekkee gànnaar mag ñam fa nekkaloon coono wa daa metti ak mettit wa ak tumuraan guñ fa tumuraan ndax booba lu ñëw sëñ bi joxe ko duñ lekk ba pare jamono yooyu xam nga feebar yu bari suñ tubaab booba xam nga wér dal na ko fa goo xam ni àgg na ci yëngal aw dara ci yaram mënu ko te fuñ nodde mu ne bërit bëgg a dem julli ji nga xam ne yow mujj waa dëkk bi ñu ne léegi ñu maase ci ne bu kenn nodd nan koy wax ci suuf buñ jullee ba noppi leeral ko ko ne ko ne ko kii ndax moom foo nodde mu bëgg a dem te moom si la ñëpp ko yërëm ci ngir wér bi coono yi nag ba méttee daa am mag ñi ku ku ku ko xamal ku ko wax maanaam ak booba lañ nekk woon nag booba dañoo nekkoon ci jaamu yàlla ak xeetu tudd yàlla ak ak njàng moo xam ne si mbiru dakk waxtu wu ne coono boobu nag benn mag waxtaan ak moom maanaam ak lam leen doon liggéeyloo ñoom mag ñooñu wax nañu ne sëñ daal moo ko daan def lii damay indi maanaa mi rek nee na sëñ ba la mu ko wax mooy dama bëgg yomal xëyam nee na yonente yi ak gaañu baax ñi kenn ku ne li nga doon def li la yàlla doon liggéeyloo ci kaw suuf te mooy jubbanti nit ñi xam nga yu baax yi li ñu ci indi du daal lu may jàngal nit ñi yoonu yàlla bëgg nga mën caa tegu loolu rek la ñuy la ñuy xante woo loolu nag ku ci gën a réussir ku ci ëpp ñoo jubbanti yaa yaa gën a am daraja ko suñu borom nee na yow suñu tubaab nag ne leen yowmal xiyam ñooñu noonu kenn ku ne bu ñu la yëkkatee di wax di maanaam say daraja ak say may ak li li li nga def ci ab liggéey ba àggal yëkkatewaat keneen mais loolu nag dama bëgg buñ ci àggee yonente bi alayhi salaam bu ñu àgsee ci moom moom it day wax ne bala moo jóg moom yonente bi day wax mboolem gaa yu baax yi nekkoon ci biir diina ji daal tem tànle muy awliyaw yi jóg ñoom la ñu yëkkati par kenn mais bu ñu leen yëkkatee wax la ñuy def ak la ñuy la ñuy ak lañ fi liggéey ba àggal nee na keneen jóg nee na ma bëgg nag boo nee na bu ñu àgsee ci man nee na bala maa jóg yéen ñi ma doon jub yéen ma doon yéen ñi ma doon defar yéen a njëkk tàmbalee jóg kenn ku ne kuñ ci yëkkati wax wax lam def ak lam liggéey ñëpp yëm ko keneen jóg nee day mujj waa waa maanaam maanaam ña fa teew te jotaay ba ñëpp waaw ne waaw kii ki ñu woowoon ba léegi jógul waa këram yi jóg moom kooku fu mu doon nee na buñ faagee nag foofee ku mu fu féetewul féetewoo mu fenn loolu la maanaam maanaam loolu mooy li gën suñ tuwaa amul lu ci gën a mag fexe ba la sëñ ba bëggoon maanaam nga fexe ba mu leer ci bopp nit ñi ñu topp suñ tuwaa yow buñ jëkkee woon nit ñi topp la maanaam faw nga génn sa sa bànneexu bopp ci loolu